mais ci wàllu 4G bi mais Abdou Karim da ngeen lancé 4G ba ñu ngi wax waxu 5G mais les problèmes de réseau le réseau n'a jamais été aussi mauvais que cette année-là même à Dakar fii. Euh. da ngay toog jékki-jékki capté 3G alors qu'on à l'ère euh, de la de la de la de la de la de la 5G et d'ailleurs même sa prédécesseur. Euh, amoon na problème avec les opérateurs à ce propos là yow bi nga ñëwee posé nga problème bi qu'est-ce qui se passe pourquoi cette année le réseau est défectueux cette année man je je peux pas dire pourquoi cette année parce que euh, très honnêtement euh, j'ai pas les mêmes appréciations par rapport ak daaw ak ren ce que je sais euh, c'est que euh, daaw euh, pour des questions de qualité de service daaw jéeg tegoon nañu ay daan les opérateurs pour qu'ils apportent des corrections par rapport à la qualité de service et par, par rapport à la qualité de couverture. La question de la, de la couverture semble être réglée parce qu'avec le roaming national nit mënatul wax ni dama yore puisu opérateur nangam dem na sangam am na opérateur te man awma réseau donc loolu pare na ce qui veut dire que on a la plus grande couverture de l'opérateur qui a la plus grande couverture. On a la, la, la plus grande Par exemple, si je donne un exemple, si c'est Sonatel qui a la plus grande couverture, donc tous les clients, tous les Sénégalais ont la même couverture. fépp ku ñu dem fu benn opérateur nekkul beneen opérateur bi mën na mën leen jël en charge cette question là donc elle est elle est derrière nous presque sauf il y a, quand même encore des poches des zones blanches yoo xam ne ñu ngi waxtaan ak opérateurs yi pour que ñu jéem leen couvrir et d'ailleurs dans le cadre de la sanction il y avait une partie qui était convertie en lu ñu tuddee euh, euh, euh, en investissement complémentaire en investissement supplémentaire par exemple complémentaire par exemple opérateur bi dafa amoon pour l'année 2023 dafa ne woon damay investir sur la qualité de service et sur le réseau damay investir sur le déploiement du réseau damay investir 100 sanction bi mu nekkoon par exemple dix milliards euh, ñu ne ñu ne ko léegi euh, pour nga mun a nga mun a euh, continuer d'investir jëlal huit milliards yi nga boole ko ci cent milliards yi nga mu bokk mu nekk sa investissement annuel donc sur cette partie d'investissement complémentaire nous avons prix un cabinet qui est en train de travailler il va nous donner les ah résultats jël nañu baal Euh, jël nañu benn benn benn cabinet boo xam ne euh, mu ngi liggéey ak ñun pour vérifier est-ce que les opérateurs ont respecté les obligations d'investissement donc si wàllu woowu la qualité de service comme ni ma koy waxee euh, c'est du permanent qualité de service bu baax tey su baaxul suba amul njëriñ daf mel ni rek séeréer bu añ démb bu añul tey daanaka day <laughs> day saalit day saalit